benn bés euh, gannaaw euh, ba fitna ga jibee ca université Cheikh ante Diop bu Ndakaaru delluwaat nañ fa niki tey jii ñaari kang ya doon euh, laale ñoo ngi janoog taskatu xibaax yi ci jamono ji naam su fekkee ni ci jamono ji tamit xamuñu lu waral goog ak fitna yenn ci seeni naataango ñoom tiit la ñu am ak jaaxle la ko waral moom mooy fitna ga nga xam ni moom la ñu dëkkaale saa su nekk foofu ca université ca Pikine tey jii la ñuy teg doj wu njëkk ci li ñu duppee maison de la jeunesse de la citoyenneté waaye ñii di askan wa nga xam ni ñoom ñoo dendook moom moo ñoo ngay artu ndax nee na bëggatuñu dund ay jafe-jafe ya nga xam ni moom la leen arène nationale ba indil rawatina wàllum inondation ak wàllum ñàkkum kaaraange ca Sigicoor société civile ba la ñuy sàkku moom di ñu féexal ñeenti ndaw ya nga xam ni moom la ñu tegoon loxo ci fitne yi nga xam ni moom moo juboon ci ndorteel weeru ko mars wi ñoom tamit lank nañu ba kaare bañ lii ñu dàq élection locale yi mbokk yi ci biir euh, xibaar yi tamit euh, dinañ ci ànd ak de ci Diop ci xibaar yi biti réew tàggat yaram ak Cheikh Ahmed Tidiane Diagne euh, njeexitaluk xibaar yi gis-gis lay doon ñuy waxtaane wàlluk yoon ak yeesal yi nga xam ni moom lañ ciy tëgg ñu fas yéene cee ànd ak ñaar ñoo xam ni seen xel màcc na jëm ci wàllu woowu ñu fas yéene waxtaan ak ñoom bu une heure feggee fanweeri simili ak juróom dal leen ak jàmm ci xibaar yi Mati Diop. Alioune Ba moom moo nekk ci machine bi feggoog Yacine Pouy ci digital bi nañu koy euh, wax ci bopp xibaar yi noonu lañ koy dooree ak la nga xam ni moom moo di fitna ga amoon na niki bikk ci guddi ci université Cheikh Anta Diop bu euh, Ndakaaru delluwaat nañ fa tey ji waaye ci jamono ji ba léegi kenn xamul lan moo waral googug euh, fitna ci jamono ji sax yenn ci seen i naataangoo ya nga xam ni ñoom ñoo nekk foofa ca université ñoom tiitaange la ñu nekkee ndax mënuñu nekk ca biir daara ja salimata aw damaa liggéey dañuy jàng dañuy damaa liggéey kii moo ma woo zéro heure bi mu wax ne ma xeex am na fi moytul sooy dugg si ay étudiants yo xamanteni ni ba léegi ñaawteef ya ñu ci bir campus bi de leen mu sol t-shirt bu weex tek ci pantalon bu ñuul étudiant bi mi ngi nekk ci master 1 ci département bu géographie mu ñi xamal ni ay wujje gënte étudiant yag nañ koy dégg ci université té lu ñuy ñaawlu la. gën li mais dañoo gis ne université monde de rivalité la monde de violence té lool waroon na mun parce que ñun ñoo wara joxe un bon exemple parce que c'est nous les futurs dirigeants de ce pays mais suñu dem ba université bëgg doono doon de bataille naay ñun ñu fi nekk sax des fois dañuy ragal ñun ñu nekk étudiant nekk au CEDEL des fois dañuy ragal day obligé sax da ngay bëgg di jàng di wàcc di ñibbi sa kër doo bëgg a loger au sein de l'université ndax ñiy def politique ñu joxañ leen baaraamu tuuma ni ñooy faral di lëmbe université bi El Bachir Diouf ni loolee dañ ko fi war a dindi. Euh, état bi def ci war a jóg carrément xam nga ay mouvement ethnique waru waru fi am parce université bu amé distinction rek ça ça peut poser problème et le malheur, lay wax ni lu lu sérieux ça peut ça peut susciter des dégâts. ñu bëggé une université parti politique bu ne bëgg a am mouvement au sein de l'université loolu doy na waar quoi dafa doy waar trop c'est très déplorable étudiants dama jàpp dañoo waroon désintéressé wu de la politique xam lan moo ñu indi université mu jàng ñu jàng xam nga mais politiciens ñoo ñuy jaxase di ñu tojuloo bopp par-ci par-là nguur gi ñu woo leen ñu jël seen ay matuwaay te loolee mi ngi war a jaar itam ci ñi ŋànk université bi ndax buñ ci jógul yëf yi mën naa jur musiba. daf fi fi yàgg daf yàgg te lool noonu euh, état bi daf si war a jóg carrément. Mm, ci wàllu fitna googu nga xam ni moom mooy jëpp saa su nekk ci daara ju mag jooju di université Cheikh Anta bu Ndakaaru kii di Abdou salaam Sall nekkoon recteur maanaam jiite woon googu kër mu ni loolu rek dafay uh, wane lajj gi nga xam ni moom la ñuy doxalee ca wàllu université ba uh, mu ni police universitaire dañ ko war a taxawal foofa ca daara ja ngir fàggu ak lijjanti yenn ko jafe-jafe yi dañ koy dégloog Pape di ba di naqarlu rek li xew ak li am muy amaat muy dund bees muy wane ne rek que ci liggéey bi ñu dénkoon dañ ci xaw a laj lajj waxuñ ndongo daara yi lan mooy daara bu kawe bi waxuñu leen lan lañ fay wut teeruwuñ leen gindiwuñ leen pour que ñu xam ne goxu defarukaay la soo defaroo am say lijaasa wala am yenn xam-xam yi sa àddina mën a taxaw nga mënal sa bopp mënal sa askan wa illa safaan ba dal la dana am yu jafe euh, li mu tëral daar ji kaw ji war war ko doxee jëfewuñ ko ni nit ñi liggéey nañ ba sonn xam nga ab dëkk toujours dina am ñuy def safaan donc dana war a am ñu nga xam ne dana tax war taxaw pour loolu loolu la ñuy wax euh, police universitaire ci université mais du loolu rek mooy problème bi loolu rek du solution bi solution bi mooy ñu xam ne daara yu kawe yi su fekkee ne dañuy pàcc-pàcc fi xale yi dëkk ak fi ñuy jàngee fi ñuy dëkk moo ëpp solo ci luñ ci war a def te fi ñuy jàngee parce que fi ñuy dëkk moo tax ñu mën a dëkkandoo am ñeneen moo tax ñu mën a nekkandoo ak ñeneen waaye suñu ne si suñuy dëkk day am ay boddiwante ci xeet xam nga loolu dafay doy waar doy waar boo xam ne tabaxu Sénégal sax suñ xel daf ci xaw a euh, jiixi jaaxaan ndax loolu parce que daara ji kawe yi dafa war a mel na xale yi dañ def benn say rek daal day góorgóorlu rek fas yéene takk seen ndigg pour euh, liggéeyal Sénégal pour liggéeyal seen bopp waaye dafa mel na ñu ngi commencé nag lajj yi lajj yi ci euh, ci liggéey ci daara yu kawe yi professeur Abdou Salam Sall jiite woon université bu Cheikh Anta Diop bu ndakaaru maanaam nekkoon fa recteur coow li ci ñàkk méngoog lii di tàggat gi ak xëyum ndaw ñi la ñuy duppee adéquation formation emploi université Alioune Diop bu Bambey euh, di ci àddu bu ñu sukkandikoo ci jàngalekat ya fa nekk les enseignants chercheurs ñu ne entreprise yi ñoom ñoo war a def ay effort ngir fexe méngale lu ni mel Babacar Diouf. méngale formation yi ak liggéey yi nekk ci entreprise yi diggante entreprise beeg université kan moo ci war a adapté wu laaj bi samp na ci université Alioune Diop bu Bambey de ñoom nee nañ entreprise yi ñoo war a xool formation yi université yi def ñu adapté wu ci docteur Amadou Gueye directeur adjoint UFR économie juridique. léegi nag il faut que nit ñi arrêté di wax ne université yi seen formation adéquate ñun de bokk nu si te aussi entreprise ñoo war a def effort boobu noonu parce que tey jii métier yi ñuy former yëpp ci université yi métier yi ñu war a amal njëriñ as as bi la. mu di stratégie boo xam ne nii am na lu mu jur ndaxte ñiy génn ci université Alioune Diop di Bambey di am liggéey bari na lool. am nañu ay plus de téeméer boo jël daanaka juróom-ñeent fukki yi ñoom inséré wu nañ ba pare ci yenn filières yi ci yeneen filières yi. daanaka téeméer boo jël euh, juróom-benn fukki wala ko ëpp donc inséré wu nañ. ñu boole seen bopp ci réseau bi ñu tuddee alumni à l'université Alioune Diop bu Bambey ñi nga xam ne jot nañ fi am diplôme te am liggéey fu mu ne nii dellu si fi joxe fi am ndimbal. maanaam njëlbeen la lu ñuy tàmbali la waaye loo xam ne day sax la ndax du di rek ay masque ci lay yem te am na ci ay yeneen partenariat yoo xam ne war nañ koo mën a def ci loo xam ne tey université képp ku fi ñëw xam ne kan ndonga daara yi fi nekkoon am na loo xam ne waraloon nañ ko suñu université parce que suñu recteur daf ñu ko doon wax maanaam service à la communauté. ci contexte bi nga xamante ni liggéey dafa jafe ci réew mi université

du ñàkk ci biir xibaar yi ñu ànd ceek euh, Lamine Ba mouvement pour la défense de la démocratie di M2D di amal ab conférence de presse tey qui ci euh, ngoon di ab ndaje boo xam ni a ngi koy amale ca makkaanuk Pastef ci communiqué bi nga xam qui moom moo rédaction une dina am déclaration yu am solo yo xam ne ni daañu ko fa euh, jibal dañuy dem ba ca euh, commune Bobu ca Pikine tey lay dallo li nga rek moom di maison de la jeunesse et de la citoyenneté euh, mu di ab euh, bërëb boo xam ne ni dañu ko euh, taxawal ca wetu fi nga xam ne rek moom moo di quartier Ndiassane Tir mu nekk loo xam ne nii jigéen ak arène nationale ba waaye askan wa ñoom dañ caa amuk tiiraa tiitaange nee nañu infrastructure yu ni mel yenn saa yi day indi coow indi leen ay jafe-jafe rawatina ci wàllum mbënd ak ñàkku kaaraange ndongo ka ay ouvriers, yuy baral nak jéego yi ngir noppi gaaw liggéey bi jëm ci taxawal baas yi ci esplanade bu arène nationale. ci barab bi nak lañuy amalé ndajama tek xeer bu njëkk bu maison de la jeunesse et de la citoyenneté bu Pikine. waaye ci geneen wet gi ci arène nationale bi di quartier Ndiassane Tir xew-xew bi nag jaaxle la daal dee jural ñi fi daal dee dëkk Mansour Diouf di njortu nag ni tabaxu maison de la jeunesse bi ñëw nag gën a taral seen i jafe-jafe rawatina ci nawet. boo xoolee chinois yi ba ñu ñëw di tabax fi arène bi ñu xolli donc suuf su fa nekkoon yëpp ak lépp donc daal di indiwaat yeneen suuf yu bees daal di ko fay teg ba pare teg ko ba mu kawe moo waral tey ji ndox mi su ñëwee lépp lay wàcc déversé waat ci kër yi boo moytuwul gis nga léegi ma gis noonu lañ koy defar même chose même tabax. mu yem ak tamit Ndiassane Kassantir don quartier bi nga xamanteni amul lenn ci branchement assainissement arène nationale bi seus rek nak ci ñom ñu ni lepp luy seen jafé jafé ci wàlluk nawet moko dal daal waral. problème assainissement bi ñu réglé ko une bonne fois pour toutes nañu jema xol plan cadastral bi nan lañ koy défé fi nga xamné fi tay ji mom kessé mo fi dess espace donc ci commune bu Pikine Nord ñu mën fi donc tek lo xamné aussi tamit ko fi ñi fi dëkk ñëpp tay ji nekk ci bi le quartier ki jafé jafé melni nak da fay gan bari ndax lu aju tamit ci wàlluk ñakum karangé ñu ni lu ëlem seen bop la gis nga bo démé ba fé di nga gis donc sareet yi dañ fay gaare ci côté arène bi la ñuy gaare booy dañuy gens ba mandi bu ñu rombee fii donc xam nga dañ lay waaji sax tël insécurité bi fii daf ñu sonal képp kuñ fi dàqi rek fii ngay daw dugg quartier Ndiassane ñoom bëgg nag ñu bàyyi leen xel ndax ñu ni tabaxuk maison de la jeunesse et de la citoyenneté bii ci seen wetu quartier warul nag ñëw daal leen gën a lor comme ni ko arène nationale bi defee woon Mansour Diouf arène ba léegi waxoon nañu donc dina am ay mesures d'accompagnement mais toujours rien euh, loo xam ne donc lu def nañ ko fi muy boo xamante ni dafay dem nak ci kilifa yor liggéey bi ci wàlluk maison de la jeunesse bi nongaka Pikine Nord radio Futur media xewowu ñuy xaar tey jii ci ngoon sax motax tax conseil communal bu ndaw yu Pikine Nord dal di yëkkati kàddu jëmle ci yessal yi ñu bëgg jëmle ci wàlluk CNEPS euh, senepsi Alioune Badara Fall euh, gis ni centre départemental d'éducation populaire et sportive mengo méngoowul ak li di bëgg-bëggu ndaw ñi dañ koy dégloog ndongo ka maison de la jeunesse ñun am nañ ci yaakaar en tant que l' ensemble des services yi nga bi ñu ngi koy soxla yëpp dinañ ko fa dugal muy ñu war def formation ñu war a encadrer bi ñu war a jàngal jeunesse citoyenneté ñëpp lépp loo nga xam ne jeunesse bi na ko soxla nañ ko dajale ci benn cadre dootul soxlaate ñuy daw ba Dakar wala ñuy daw ba VDN ba di seeti DER wala ñuy daw ba Castor di seeti ANPEJ lépp mi ngi fii nii Pikine donc nañ ko yombalal jeunesse bi te li ci gën vert donc loolu nak bu ñëwé jeunesse bi aussi nañ xam nan lañ ko utiliser parce que ñom lañ ko defal bu ñu yaafus gestion bi décret moko ko institué ci application nak fofu lañ leen di xaaré. bon il faut oser le dire hein, CDEPS si seen rôle yi ñu warono jouer dafa dem ba melni jeunesse bi dafa leen dépasser parce que ñom li ñuy offrir jeunesse bi ak li jeunesse bi aspiré actuellement bokatul. moo tax jeunesse bi damatuñ di fa fréquenté léegi nag li wara am moy que ni dañu war a xoolaat taxawaayu CDEPS yooyu xoolaat lañ koy tëggaate pour mu gëna mëna intéresser jeunesse bi mais nak ñun duñu bañ CDEPS yi parce que CDEPS yi pour ñun la maison de la jeunesse pour ñun la dañuy ñuy jël yëpp rek boole ko mu nekk bénéfice su jeunesse bi. ca fatik mom ndaw ya nga xamni ñom ñoo nek ci conseil départemental ba bot euh, googu ko kurel ñoom la ñuy sàkku moom ñu saytu bu baax baax ko li di DER di délégation générale à l'entrepreneuriat ndax nee nañu la wax ci ay koppar ni moom la fay duggal tollu ci juroom ñaari téeméer ak ñeent fukk junni ci copar euh, loolu demewul nonu mo taxit ñu dañoo bëgg ñu saytu bépp programme bo xamni dañ cey duggal copar jaglel ko ndaw ñi Aminata président conseil départemental jeunesse bu Fatick nak mom nak limi muy wax nëbbu ko nee na bi nga xamni mom la DER di wax ne mom lañu financer financé ndaw yi nekkee ci biir département bu Fatick méngoowul ak li nga xamni mom mo am ci terrain bi par Massène Gueye Wa DER indil ñu ay chiffres ne financé nañ au niveau de Fatick déglu leen bu baax 744 millions ne financé nañ ko plus de 1400 jeunes parce que ben cérémonie lañ fi gis DER def ko fi joxe ay jeunes ay chèque ay 5 millions ay 10 millions ay 2 millions 500 c'était au berge du Sine jeunes yooyu xey suba dem crédit mutuel ñu jox leen cent cinquante donc yaakaar naa ne loolu deux du du financement. ñàkkum liggéey bi ba léegi mi ngi wéy di am doole ndaxte ne ñu quatre ci ndaw ñi nekkee ci biir département bu Fatick rawatina ci dëkku àll yi amuñu liggéey buñ sukkandiko ci Pam Massène Gueye mom nak mune ne dañoo war auditer programme yi nga xamni mom moom la nguur gi tek at yépp ngir rek xeex lépp luy chômage ci Sénégal. ñu ngi ñaan président de la République nañ ñu défal évaluation d'air défal ñu évaluation ANPES défal ñu évaluation ANIDA ak 3FPT nee nañ jox nañ ndaw yi liggéey jox nañ ndaw yi ay jumtukaay té ba légui ndaw yi nekk département de Fatick liggéey bi daf fi sooxe ne leen ñun yi nga xamante ne ñoo jot financement yi ak financement yooyu fan lañ ko dugal usines nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Fatick rawatina port bu fi mu ne jot nañu ubbi leen ndaxte ñoom dañu jàpp ne dana tax ñu a wàññi taux de chômage bi ci biir département bi am na ay structures fi nekk yuñ defar ba pare yu mel ni usine de biscuiterie bi yu mel ni port de Ndaxonga ay ndaw war nañ ci mën a liggéey mais ubbeegul ba léegi ñuy ñaan autorités yi ñu jàppale si nu mu gën a gaawee parce que ndaw Fatick yi dañoo soxla liggéey fan yee ñu weesu nag njiitu réew mi annoncé au na conseil national pour l'insertion et l'emploi de la jeunesse ñoom ndaw yi nekkee ci conseil Bobu, li mu ndaw de fututi nyom dafa tuuti ñom nak ñu japp ne dañ ko wara a ba ndaw ñi di mëna waxal seen jafe Aminata Goudia bi fatika pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. intersyndical bi boot liggéeykatu RTS euh, fare ci SYNPICS ak ci CNTS euh, doon amal ab bu ñaxtu ni ki tey jii ca makkaanu ko googu ko kër ñoom liggéeyal la ñuy ñaawlu moom moo di doxalinu ko kii di directeur général ba di Racine Talla waaye tamit ñaawlu ñàkk ak leeraange ga ca doxalina ba ak fitna ga nga xam ni moom la indi ca biir kër ga Nafissatou la loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko gestion bu jaarul ci yoon ci wàllub xaalis wala mu jéggi dayo bilan boobee la intersyndical bu SYNPICS ak CNTS bu RTS dal di def jëmale ci seen directeur général Racine Talla Cheikh Birahim Ndiaye di secrétaire général bu CNTS section RTS ne loolee dafa doy. dañ doon négocier benn accord d'entreprise boo xamante ne def na 15 ans ñu négocier ko ba dara desul lu dul ñaari poñ ñu am point de divergence bi ñu amee point de divergence ñu ne ko ñun kat syndicalistes yi base bee ñu mandaté. te nag vraiment dinañ dem laaj base bi bi ñu ñëwee laaj base bi base bi ne ñoom lii la ñu bëgg biñ ñu waxee li ñu bëgg ñu gàdd ko dem jébbul ko résolution il a croisé les bras faale sax defuñu ko amul leneen lu muy def lu dul jël suñuy rakk monté ko suñu pour ñu ñëw saboté suñuy mbir te loolu nag duñ ko nangu clause bi mu bëgg dugal suñu accord nag bon bu amul xam-xam na dem wuti ay avocat wala mu wut ay syndicaliste de renommée mënuñu fay fekk benn texte boo xamante ne ñu ko laajee ñu ñu lii waru cee dugg moom mi ne da ciy dugg par force loolu nag lañ ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg daanaka taxaw temm ni seen bërëm bu liggéeyukaay faw ñu sàmm ko. tey il a sorti ses directeurs ñu dem menacer seen travailleurs yi moo tax bu ñoo ñëw am na ci commencé wàcce wàcce na ay directeurs ndax lan dañoo bañ a daaneel syndicat bi dañoo bañ dal ci kaw syndicat bi du yàlla du yonent il s'est trompé il n'a qu'à à la raison président Macky yow la waxal léegi nag li nga def yëpp mi ngi yàqu ndax racine taala suñu accord nag dañ koo soxla dina ba tax na nag ñoom ñëpp lëkkaloo nañu ngir daal di jàkkaarloog kii di Racine Talla Euh, ca ndaje moomu sax ñi nga xam ñoo di technicien yu RTS yi bokk ci Synpics ñom di euh, ñaawlu genn gi nga xamni intersyndical bi euh, dal dina koy genn ñom technicien yu gis ni mbir mi dal ap diversion la manam dal la wax taxawul ndax section Synpics bi amul kaddu ngir wax ci mbir yi nga xamni ni maîtriser wu ko wala amu ci sax li di légitimité ndax élection délégué à amagul à ay renouvellement ko ci ko bureau ba dañ ciy déglu Babacar micro gis dafa c'est un système de divertissement la RTS compte plus de 500 ou 800 agents mais fi ñi nek Dakar rek bu ngeen len bu ngeen len bu kon mouvement bi mu ngi leen di wax c'est très simple moy li nga xamné mo nek ci banderole yi li nek ci banderole yi moy lan on réclame le renouvellement du bureau du SYNPICS ñom sen mandat dafa jeex ils sont illégitimes ils sont illégaux ils ont fait leur assemblée générale ñu ne leen assemblée générale bi amul c'est juste une rencontre rencontre bo xamné moy pour une information une bande d'amis nek fi pour rek euh, opinion bi li ñi wax teguñu ko fenn affaire de convention la ñi wax pour euh, luñ koy sax euh, comme, ça euh, clause de mobilité, des choses comme ça. C'est pas le débat. L'accord de principe, du débat. Débat, nous nous renouveler bureau Simpix. Le renouvellement du bureau du Simpix, c'est ce que nous réclamons en point. ñu wax euh, lu soxal wàllu ko mbas mi ak takk bi nga xam ni moom lañu ci jukki ni ki euh, tey jii ci junne ak juróomi téeméer ak euh, juróom ñett fukk ak juróom benn test juróom-ñeent fukk ba ak juróom-ñeent ñëw lañu am doomi jàngoro yi ci loolu ñu ràññee ci fanweer ak ñeent yoo xam ne ni ay cas contact la ñu juróom benn fukk ba ak juróom di yu jugee ci lu ñu duppee transmission communautaire dégg ci suñu xibaar yi weesu kii di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mi yore kàdduk ministère RFM bitim réew. Georges ci Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El euh, Hadj Ndate ca Mali euh, ak euh, cong goo xam ne ni force Barkhane yi ñoom ñoo ko amal euh, ñu dal ci seen kaw lu toll ci juróom benn doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ñu songe ko ci ay roplaan mu indi coow foofu ca Mali mu ngi dal nag ci dëkk bi di talaatay ab localité bi nekk diggante Gao ak Menaka maire bi jàpp ne ñi ñu faat ay ndaw lañ dëkk ca dëkk ba ñeent ña am seen fukki at ak juróom benn motut te dañ doom dañ demoon rëbbi ji ci àll ba euh, loole nag euh, waa force Barkhane weddi nañ ko ñoom li ñu wax moo di ab opération bi nga xamante ne dañ ko jëmale woon ci ab groupe armé terroriste état major français bi ne ñetti moto sax yàq nañ ko ci wàll woowee euh, bombardé nañ ñetti moto mu di nag ñaareel bi yoon diiru weer diiru ki ay weer yu bëriwul ab intervention ci jaww ji waa l'armée bu France def ko foofu indi coow te kenn déggoogu ci ca Niger moom gën kaa tuuti fukki nit ak euh, benn la ñu faat euh, àllarba ca région bu Tillabéri ci ab cong ci ay cong yi ñu song ay dëkk yu bëri ñi def lu ni mel nag euh, ci ay moto lañ nekkoon lakk nañu itam ay classe naka noonu ay case de santé laata ñoo daw drame boobe am ay fan gannaaw bi amoon te téeméeri nit ak fanweer ak juróom-ñaar ñàkkoon ci seeni bakkan dimanche gi ñu weesu ca région bu Tawa ñu dem ba république démocratique du Congo wax ci mbirum Chebeya yi am na ay wër yu ñuy def ngir fexe gis néewu ko di Bazana. dogalug euh, yoon la euh, bureau conjoint bu mbootaayu xeet yi ca yor lépp jëm ci wàllu euh, ak gelefu doomu Adama Kinshasa ne gëstu yooyu maanaam fuy yooyu nañ mercredi gi ñu weesu ci concession privée wala këru privé bu général Zelwa Katanga Jadjidia kër googee nag dañ ko mujjee woon te sax mën a bokk morcelé ko def ko ay parcelles yu bari jaayaat koo gannaaw assassinat bu euh, Euh, ñooñee di xeexal ak gelefu doomu aadama di Chebaya ak euh, Fidel euh, Bazani ci ay kàddu yu nga xamante ne ay policiers yi daw newoon ci RFI bokk nañ ci assassinat boobe ñoom nee nañ néewug Fidel Bazana Edad yi ñu ngi ko entere woon ci benn kër ca westu Kinshasa ci yoon wi jóge Congo yoon wu jëm Congo central. ñu jeexalee ca Tanzanie njiitu réew ma faatu woon di John Magufuli ñoo ngi koy dëjël ca ab dëkkam ba mu fekk baax. néew ga dañ ko yóbbu woon ci këru cosaanam ca château exposé ko nit ñi ñëw di ko xool cérémonie bi nag ki ko jiite woon moo di premier ministre ba di Kassim Majilawi John Magufuli Magufuli ropp nañ ko ajuma gi ca château njabootam teewe ko naka noonu ay jege ñaaleem ak itam ay uh, xaritam gannaaw bi biñ ko defalee ab service funéraire privé mu ngi fan ak juróom-ñaar ci weeru mars gi ñu weesu bi mu amee juróom benn fukki at ak ñaar. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu di la jaajëfal léegi léegi xibaar yi ah, tàggat yaram ak Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ji Ndate Diop. football la ñu koy euh, dooree muy benn xët rek ci euh, xibaari tàggat yaram yi Sénégal di daje ak Congo niki tey ji waaw niki tey jii ci bu 16 jote jotee lay daal di doon googule jongante diggante Sénégal ak ñii di waa euh, Congo Brazzaville match googu di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futur Média ci lu jëm nag ci fànn googu jàppale ni sax suñu gaynde yi fi mu toll nii ñoom nag ña nga ca wàccaay gi ki nga xamante nag moo di seen entraîneur Cissé démb am ay kàddu yu mu jot a wax ci gilee jongante donte Sénégal dal dina qualifié ba paré seen mbébét mooy fexe ba am ndam ngir mëna a dëggal seen ci bop classement bi Aliou Cissé. J'aime pas trop parler des, des, des adversaires. bëgguma di wax si ñi may dajel rawatina bun soppee li di entraîneur ndax day gën a yokk jom ci joueurs yi wante terewul ñi ngi njort match bu jafe suñu diggante kongo di équipe bu mag du match bu amee noonu dayo si ñun wante ñoom nag dese na leen ñaari match ngir qualifié man li ma gën a yitteel tey mooy gërëm samay joueur ak pas-pas bin am rawatina jamonoy mbas mi ñu nekk ndaxte FIFA club yi la gën a dooleel wante dogal bu tax bañ xam ak ràññi club yi ñu jox cër ba yeewi seeni jour ba mën a teew ci bile sélection kooku di Aliou Cissé yëkkate yooyu lay kàddu ni ki démb gannaaw doon amal li nga xam te daal moo di seen conférence de presse devant match jamono gi ma wax ak yéen nag diggante Guinée-Bissau ak Eswatini daal di na door ci Eswatini la ñu koy daal di amal loolu nag bokk ci euh, pulu euh, Sénégal jongante gu nar a jafe tey jii ci Nouakchott diggante Mauritanie ak ñii di waa Maroc euh, jàppale nag ñi nga xam te ñoo di waa Mauritanie ñoom foofu rek am ndam seen digg ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa marok ngir mën a am chance qualifiée ci Coupe d'Afrique des Nations donte des na benn journée bi nga xamante ni war nañ ko football niki semaine bi nii di ñëw seen gannaaw nag Burundi ak République centrafricaine ñoom ñoo fa daal di nekk ñoom jamono gi sax itam Euh, ñu ngi euh, football dañuy daal di déglu euh, kenn ci ki nga xamante ni daal ci équipe Mauritanie la daal di nekk moo di seen góol di Bakary Badji ñu déglu ko ci micro Abbas kontaante rek parce que lii moom ndam bi ndami ñëpp la waaye nag euh, lenn la loo xam ne nii musuta am fii Gambie yoo xam nga musu ñoo qualifié pour euh, dem AFCON so kon euh, bu fekkee lii am na suñ jamono dañ cee sant yàlla bu baax sant si nguur gi waaye sant si ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci di wane suñ kontaante ak mbégte ci coach bi ak team bi yëpp yëpp si li nga xam ne nii moom la ñu defal ndam bi nga xam ne Gambie eh, xelaatuñ ko woon sa si at yi passé ne ne jamono ji dinañ mos a qualifié for AFCON Gambie ak Sénégal ñun ñëpp benn lañ te lépp ci li ñuy def war nañ cee mën a bokk bi yàlla defee nag Sénégal yàgg naa dem ñoom ñoo ñu ëpp expérience ci lii bi yàlla defee ñoom ñun ñun ñoo bokk ak ñoom baax na dinañ ànd bokk lépp li nga xam ne nii moo ñu eh, tax ñu àggale ñaan yàlla buñ bokk groupe su ko defee yi fi gën a neex nit ki moom da ngay nangu ku la ku la raw ku la jiitu da ngay nangu ne moo la jiitu moo la raw nga roy nga roy ci moom jàngee ci moom so kon eh, comme Sénégal yàgg nañ di dem Gambie mu ngee door a dem eh, amuñ dara lu ñoo def lu dul bokk ak ñoom ñu won ñu yoon bi nga xam ne ni foofu lañ jaar su ko defee ñun tam ñu mun fee jaar ndam yi nga xam ne moom lañ am si African Cup foofu nay son yàlla def xëy na tamit ñu mun cee àgg. ki ngeen jot a dégg nag moom moo di Bakary Badji di joriñ gu yore wàllu tàggat yaram ca Gambie doon yëkkati ay kàddu gannaaw ba Gambie qualifié gulet ci euh, Coupe d'Afrique des Nations si wàllu senior yi moom ay kàddam kakatataan di suñu naataango nekk ci quotidien stade di Abdoulaye jaañ diko ko jaajëfal daal di taxoon nag ci jongante bu nga xamante ni Mauritanie nar a amal fileeg ci kanam tuuti diggam ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Maroc ñoom dama ko waxee faw rek ñu am ndam ngir mën na am yaakaar ni mën nañoo qualifié euh, ndax ca ngeen gannaaw kii di waa Burundi ak RCA République centrafricaine ña nga ca te ñoom ñaar ñëpp ña ngay yot xëy nak Mauritanie bu jumee rek ñu daldi di place googule té lool mën na leen indil ay jix jaaxa dañ ci daldi déglu euh, ki di seen euh, góol di góolu équipe nationale euh, bu Mauritanie di Babacar Diop ci micro Abadji match moom on va le préparer avec sérénité amna ni match bu important la pour ñu ci match de qualif la waruñu ñak match bi tu war a def le tout pour gagner match bi incha contre équipe bu difficile match contre Maroc une équipe très forte peut-être meilleure l'un des meilleures équipes d'Afrique donc ñu tamit on est déterminé engagé à gagner ce match inchallah parce que du bëgg na leen qualifier une deuxième année une deuxième fois consécutive loolu moo tax euh, ñu war a joxe yëpp si match tay bi inchallah pour qualifier wu. ci groupe F bi fileeg ci kanam tuuti Cap Vert ca Praia dana taseek ñii di waa Lions table bu Cameroun ñoom yi nga xamante ni qualifié nañ ba pare ndax ñoom ñooy organiser Coupe d'Afrique bu ñu na ma amal ci 2022 ñii di waa Cap Vert nag euh, faw rek ñoom itamit ñu jéem a góorgóorlu mën a am ndam bu ko daa defee daal mën a bokk ci équipe yi euh, qualifié ci googule Coupe d'Afrique ndax jamono gi fu ñu ci classement bi euh, daanaka daal baaxul loolu euh, ci ñoom Niger mom dana jogante ak ñi di waa Côte d'Ivoire ni ki tey jii foofu la ci Niamey ñoom Côte d'Ivoire seen ba am fa ndam ngir mën a foqati place bu njëkk bi nga xam te ne jamono gi Éthiopie moom moo di jël gannaaw ba mu amee ndam bërki démb seen dëkk seen diggante ak Madagascar ñeenti bal ci dara xanaa rek fàttali alaaj ndate équipe yi nga xam te ñoo ci Coupe d'Afrique modi Cameroun organisé Sénégal Algérie Mali Tunisie Burkina Faso Guinée Îles Comores Gabon Gambie Ghana et Égypte jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Diagne Gambie bokk ci ñi njëkk a qualifié Sénégal ñu ko ba mu njëkkee qualifié ca 86 nekkoon na lu rëy cim réew. waaw 86 ndax boobu boo xoolee dañoo amoon benn traversée du désert noonu lañ ko mhm. waxee. Mhm. maanaam dañu tegoon ay at yu bëree bëri yi nga xam ne jotuñu woon qualifié ci Coupe d'Afrique des Nations euh, gannaaw bu ñu ñëwee ne 86 nag si la ñu daal di qualifié mu mel ni ki lu beesoot la ci footballu Sénégal ba taxoon na ñu bëri amoon yaakaar ci équipe boobu leen ndax jamono googu tamit amoon nañ ay joueurs yu baax a baax. waaye voilà Bokande Omar Gueye Sène Thierno Youm euh, ñoom euh, Cheikh Seck euh, ñoom Mamadou Taw ak ñoo ni mel ñoom Joseph Koto yaakaar naa ak ñoom Moussa Ndaw mhm. ña ko woon ci équipe boobule waaye ci mujjantal daal mujjoon nañu perte te jour boobu dama ko fàtte mu ndate gënoon nañ fi nekk gune waaye suñu élimination suñu diggante ko Côte d'Ivoire ay jàpp deux heures jàpp trois heures métti woon na loolu. lu bari la indi won euh, fii ci réew mi ak penalty ba ak rateeg yooyu Inchallah rande ci kanam rek. jërëjëf euh, Cheikh mu match boo xam en direct et en intégralité à partir de 16h ak service sport bu radio Futur Média. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey gamme Opalia. ak savon de Marseille créole. Nyon Enimei, di may li yi ci yéenekaay yi ñu àndi ceeg Mamadou Mamet Ndiaye jërë ngeen jëf Aliou Ndao ma réeroon feeñ na moom mi ne woon i jamono procureur spécial bu cour répression enrichissement illicite di këré yi daanaka moo nekk ci mboolem yéen kay ñu xëyandool l'observateur nañu cim ndajem waa union des magistrats du Sénégal xëy woon démb doon ca waxtaane ak càmbar rëq-rëq yi si si réew mi Rambo fa la ñu ko seen moom Aliou ndaw bi mu jëlee kàddu gi di wax wax na ne waxi troisième mandat bu président Macky Sall bi ñuy jaaba jonge ak di ko ŋawta ŋawtee ci réew mi boobee ba léegi daanaka ñi ci nekki wax dañoo sawar a wax rek waaye ñëpp xam nañu ne Macky Sall waruta mënut am troisième mandat ci bopp réewum Sénégal moom Macky Sall ci jëmi boppam sax xam na ko ne li ci constitution bi wax dafa leer mu di kenn mënut a jiite réewum Sénégal lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo Aliou ndaw noppi ci loolee dali ci ministre intérieur di Antoine Félix Diome nee na xam naa Antoine Diome bu baax a baax liggéey naa ak moom ne woon naa njaati njaatigéem heure bu ma sax na am ay problème man lay seet si ñu waxtaan ci magam la ma jàppe woon daan na wax ak man yoo xam ne sax daawu ko wax magam ju mu dama koy ñaanal ndam ci li mu nekk waaye nag di ko xelal mu defaraat communication ndax ni muy communiquer baaxul attention ci politiciens yi ndax bu leen toppee ci seen bëgg-bëgg ci guuta la koy tàbbal te bu mu fàtte mukk moom Antoine Félix Diome ne am na carrière bu mu war a sàmm la nañu moom procureur spécial bu cour répression enrichissement illicite ba woon di àllu ndaw wax na ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji yi fii lëmbe woon réew mi fan yi la weesu nee bu dee li ñu koy waxal moom Ousmane Sonko ak di ko ko toppee ak di ko ko tuumaal bu dee lu wér justice bu indépendant ndax du leen arrangé mu ne dañuy gis ci réew mi ay ministre yuy sant ay procureur ngir ñu bañ a topp ma sàmba baa di topp ma demba te loolee ñu bëgg ba sant koy procureur ni ñu ko bëggee na la leen ko procureur yi di defalee nee na kii di Antoine Félix Diome ministre intérieur sama rakk la li ma koy digal moo di na def attention ndax ma Macky Sall ñetti at a ko fi dese te aw mar ku mu tax dëta mu am póotit bu ndox amee gàcce ray la lii quotidien nañu réquisitoire bu tàng jër boole ko wex moom la Aliou Ndao def wax na ci justice bi ak i rëq-rëqam wax na ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr wax ci bu Macky Sall bi wax na it ba wax ak kii di Antoine Félix Diome bay sàkku ci moom mu jàngiwaat communication ndax nee Antoine Félix Diome bi mu doonee ministre intérieur ak léegi ay tooxi duuna ak i génn rek la fi dëkk ko neex lay waxe ak sénégalais yi te ab ministre de l'intérieur ci am réew loolee waru ko nee na lu soxal mbirum Ousmane Sonko ak Adji ak ni mbir yi demee c'est normal ñu wax ci waxi kompolo Sud Quotidien xëy di ñu wax ndaje mi waa Union des magistrats du Sénégal amaloon démb ngir doon ca waxtaane mbiri état de ko ci doxalinu la nit yoon yi doon Souleymane Teliko président union des magistrats du Sénégal Moustapha Fall di magistrat Alioune Tine njiital Afrikajom sant ba ci professeur Ngouda Mboup bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ku ci nekk ci ñoom ay kàddoom mi ngi ci xët mu njëkku Sud Quotidien ci xët mu njëkku Les Échos wax joojee moo fa nekk ak it kàddu yi mu fay wax ne justice cim réew bu amul indépendance moo di ñàkk na dayoom ak wegeelam Alioune Ndaw ne ñu fa moom ci lu mu xam musula fàttalikoo fu ñu ñàkkalee fayda justice su Sénégal ak di ko ŋàññe ko ñu koy defee temps yi Guy Marius muy wax bay joxañ photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk journal la mandat yéenekaay bi nañu ginnaaw bi mu génnee ci kaso bi keroog àllarba akub liberté provisoire moom jiital FRAPP France Dégage di Guy Marius Sagna nee na la mu ne woon du ca jóg tey jii ci la gën a dogu ci xeex li mu tuddee banditisme d'État mu di jëfi yuqu njuur yi am ci réew mi réewum Sénégal ak réewum Congo Brazzaville tey jii ci tàkkusaan ji ci la ñuy football record yéenekaay nañu 4 ci ngoon ci la max a am ma ngay amee ci Congo Brazzaville gayndee nañu fa ñu teg seen tànk ñoom équipe nationale bu Sénégal ci wàllu football moo di yoonu ndam wi ñu tegu ñu bañ ko wàcc ngir loolee mën a am nag yéenekaay bi nee nañu il faut que dañuy gagné seen maxub tey bi comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gis-gis yëg si nañ si li ñuy waxtaanee tey jii di yeesal yi nga xam ni moom la yenn ci acteur de la justice yi daal di euh, sumb ak ñenn ci société civile bi euh, ngir ñu joyanti li nga xam ne rek euh, moom moo di yoonu Sénégal ngir waxtaanee lu ni mel ñoo ngi ci bu jokkoo gi ak maître Assane Dioma Ndiaye maître maa ngi lay nuyu. oui maa ngi lay fay ndate. yow ngay di juriste jiite LSDH tamit. Euh, ñu di la jaajëfal ci buum gi tamit ñoo ngeek euh, docteur Abdoul Aziz pay euh, sëñ bi fay ñoo ngi lay nuyu. waaw di nuyu di leen sant di nuyu Assane maître Assane Diouma.

Euh, monsieur Mbow moo ko jiite woon ñu doon ko sargal ñaar fukki atam di ko ñaanal muy yàgg suñ kanam yii yëpp yu bëri tënk na ko mais nag contexte dafa am solo tey dafa am contexte bu bees ba xëy na lañ doon wax nit ñi di ko ñàkkal fayda mënatuñ ko ñàkkal fayda tey moo tax nag tey euh, dëmb ndaje bi am ñu daal di ci waxaat feebar bi waxaat ay solution te nga xaw ko fàttali mooy ñaareel parquet bi neewuñu nag lien ombilical bi ñu dagg ko entre le procureur ak gouvernement bi xëy na fenn mais am na loo xam ne gouvernement bi war na ko jombal boppam parce que magistrat même bu doonee procureur infraction am wala bañ a am nga ne ko defal lii dina nangu parce que bu doonee instruction écrite instruction écrite parquet bi lu ko état bi wax daf koy exécuter mais. yaa ngi koy dugal mooy mooy wàllu injonction yi euh, ñii di waa UMS doon di nga dem. waaw surtout nag injonction écrite yi. Mhm. surtout nag li ñuy wax non poursuite. xam nga injonction écrite yoon prévoir na ko maanaam gouvernement bi bind procureur ne ko defal nangam mais bul ubbi enquête. Mhm. bul ubbi enquête alors que infraction am na. loolu mooy injonction de ne pas euh, appliquer la loi. Mhm. kooku nag magistrat boo ko def xam nga magistrat yëpp ay euh, juge yëpp ay magistrat lañ mhm. mais juge yi magistrat yi ñëpp duñu ay juge ñoom procureur yi ay magistrat lañ mais duñ juge moo tax ñuy dépendre ñoom ci procureur boo seetee cour européenne sax dafa considérer procureur yi ne leen yéen du ngeen autorité judiciaire parce que vous n'êtes pas indépendant mhm. loolu mun nañ leen nangul sax léeg-léeg ay instruction mais bul ubbi enquête wala def loo xam ne day porter atteinte ak conscience su nit ki mhm loolu état waru ko teg magistrat ñaareel aussi am na euh, conseil supérieur de la magistrature proposition yoo xam ne yàgg na fi ñu bàyyi magistrat yi ñu gérer seen carrière ñetteel bi aussi mooy juge de la détention et de la liberté boobu ñun ñëpp ñu ngi koy wax xëy na loolu bu amoon lu magistrat lu procureur yi nekk sous la dépendance de l'exécutif dina am juge bu nekk diggante procureur ak défense ak beneen partie bi ñuy topp te juge boobu bu indépendant donc réforme yi bëri na moo tax ma jàpp ne tey jóge nañ ci contexte boo xam ne li ñuy wax ne société démocratique kenn du wax ne du am conflit mais li ñuy wax bu conflit amee dañ ci war a jële jàngat ba mu gën a dëgëral démocratie bi état de droit moo tax ñu yaakaar ne tey nag gouvernement bi dina ubbi nopp dégg uh-huh. li nga xam ne magistrat yi wax nañ ko ba li nga xam ne génn nañ ci ñëpp nakarlu ko te ñëpp demoon ba sa bopp li ñuy wax angoisse existentielle sénégalais bu le tiit pour ëllëgam te loolu li ko gën a indi rek mooy neewaay doole justice ak li ñuy instrumentaliser justice bi ñu defee nag ne tey gouvernement bi xëy na doon na tàndaaful li nga xam ne daan nañ ko wax mais bii def naa am nañ yaakaar ne dina indi

volonté politique moom du tey la juddu manque de volonté politique du tey la juddu Sénégal. Mhm. ndax euh, lii yëpp yàgg na fi. bañ koy wax boobu ay 1979 la woon am ay avocat am ay magistrat yu jógoon di ko ci wax mais xëy na ni ñu ko waxee tey rek dafa am benn fee bu ñëw affaire bi jugaat nit ñi joynaat yi di ci wax wax bu wax bu wax bu am solo euh, mais suñu pouvoir politique yi surtout exécutif bi dañuy am tendance di xaw a ragal justice bi jël indépendance comme total parce que bu ko jëlee dañuy yaakaar ne xëy na sañ-sañ bi ñuy magistrat yi di am dootuñu am benn contrôle ci magistrat yooyu et loolu mooy tax ne ñoom volonté politique boobu duñu ko am parce que bu ñu amoon volonté politique depuis très longtemps mooy kon lii tey jii débat bi dépassé nañ ko bu yàgg mais malheureusement volonté politique boobu amul mais nag ñun ñëpp dañ ci am responsabilité ñun ñuy falaatee dañ ci am responsabilité ñuy falu dañ ci am responsabilité ñiy tas xibaar yi aussi dañ ci am responsabilité lu tax may wax loolu ndaxte nit ñi taskatu xibaar yi eh, dañu war di fexe aussi tey jii jamono juñ toll ba nit ñi bu ñuy tànn ñu seen tànneef mën a nekk ci ay mbir yu leer mais da ngay seetlu ne bu ñuy tànn dañuy tànn ci à la tête du client comme ni ko tubaab bi di waxee xooluñu nit ki lu muy proposé sénégalais yi lan la xamuñu ne sur le plan judiciaire bu ñëwee ne lii engagement yi la jël dina ko def wala du ko def sur le plan économique engagement yi dina ko def donc tey presse bi dafa war a dimbali aussi nit ñi du dimbali citoyen yi ba nga xamante ne question yi ñuy posé maintenant les candidats ñu discuter ci programme candidat candidats yooyu pour mën a leeral gindi xelu nit ñi. loolu mhm. dina ci am solo. Mhm. mais leneen li ci ëpp solo mooy xam nga réforme yi moom foog ñu ko ñu def ko ndax demande sociale la parce que man damay jàpp ne gis nga constitution mooy sartu ndeyu réew mi mooy tënk lépp te constitution il faut ñu bàyyi notion bu ñuy jël ci Montesquieu di wax naan ay séparation des pouvoirs atténuation des pouvoirs mhm. man dama japp ne man ci sama xam-xam bu gàtt que ne constitution defuñu pour art président de la république constitution defuñu pour art pouvoir législatif bi muy ay député constitution bi pour art pouvoir judiciaire bi muy euh, le pouvoir judiciaire dañ ko def pour art askan wi parce que askan wi moment mo am sañ-sañ ak te bo xone constitution Sénégal ci ba sañ ak askan wi donc constitution il faut que teunk pour protéger maintenant citoyens par rapport à ces pouvoirs là di di pouvoir parce que dama ci am normal réew démocratie réew am yoon waru jël lu ci eh, muy décider ci avenir nit mhm. Sénégal constitution bi par exemple président de la république bi dafa décider pour le sort de 1000 personnes parce que mooy signé seen ay décret mhm. kii mooy digli kii mooy nangam kii mooy nangam qui mooy nangam kooku bu demee ba am sañ-sañ wax démocratie sax man damay un problème mhm. docteur docteur dañ ci jëwaat ci poñ boobu euh, waxtu yi oh. moom ñuy bëgg a tànc rek ñu jëlaat ah. euh, maître euh, assan Dioma Ndiaye maître bu ñu xoolee fan yi ak mbir yi nga xam ni moom moo xew diggante Ousmane sonkook aji saar loolu mu mel nii dafa gën a yokk crise bi ci biir langu ko justice gi ndax tey jii am na ay garanti yu wóor yoo xam ne nii dina mën a may kii di magistrat bi mu assus assumer li nga xam ni moom moo di indépendance di maanaam moom sa bopp gi. waaw boo gisee Euh, changer euh, réformer conseil supérieur de la magistrature moi, organe institutionnel bi nga xam ne moo garantir indépendance bi mhm. te organe bobu, ñaari principe wala benn bi kena tek moi, le principe de l'inamovibilité maanaam magistrat bi àtte magistrat du siège ci kaw àtte bobu, waru ci waruñu ko ci mun a inquiéter nit ñangi wax sax ne magistrat bi bu ko nexé mu indépendant mais indépendance du loolu du magistrat bi day xaru parce que ñi wax ne tay magistrat bu ne mun na indépendant bu ko defee suba ñu affecté ko ñaareel bi du am benn poste de responsabilité te xam nga kuy liggéey aussi sa mérite ak sa compétence ak sa grade ak sa ancienneté boo gisee keneen koo xam ne yow yaa ko ëpp loolu yëpp te mu lay féete kaw daf lay démoraliser day indi genre souffrance psychologique boo xam ne genre frustration boo xam ne magistrat yëpp a ngi koy dund même bu fekkee dañu bëgg a indépendant dañuy gis indépendance boobu lim leen di yóbboo moo tax ñun ni ñu gisee indépendance dafa weesu indépendance individuelle système bi ak euh, organe bi war a garantir moo war a fexe ba magistrat bu ne surtout du siège kiy atte kenn du ko mën a bund xatal ci kaw li muy atte moo tax ñu defe ne tey réforme boobu war na tax ne magistrat di siège yi am na xale bu fi nekkoon euh, côté Podor ministre bi ne ko bàyyi nit mu ne mu ne ma ko bàyyi ci suba nga ñu affecté ko te loolu mës am Sénégal muy benn ñaareel bi aussi coow li nga fi wax gis nañ médecin bu bind ci certificat médical am parce que médecin bi day constaté rek ne gis naa dara ci diw gis naa dara ci diw jébbal yoon mais bu ma médecin bi demee ba ne jël naa ay prélèvement en vue de test ADN atte ci atte place juge bi mais juge yi war nañ ne non lii mënatul a dem maître yow tey jii lan ah. nga jàpp ni moom mooy yeesal yu urgente maanaam les réformes urgentes yi ñu war a def. non yeesal bi moom mooy nañ bàyyi magistrat yi ñu gérer seen carrière président mooy continuer di nommer à tous les postes suivi de politique parce que ñun ci France lañ tënku woon mais France def na réforme instruction yi ñuy wax kenn amatul droit def ko dans les affaires individuelles mun nga ko def ci dossier yoo xam ne dafa laal ordre public bi mais diggante ñaari citoyen loolu amatul France ñaareel aussi président de la république France léegi ku mu namee day fekk magistrat yi collège ancien magistrat yi au magistrat yi ñooy def proposition président bi day entériner proposition yooyu nga xam ne magistrat mais du ministre bi wala président de la république moo naan diw yóbbu naa ko mhm. procureur diw yóbbu naa ko juge d'instruction wax naa la aussi juge de la liberté boobu bu indi indi woon dina indi que procureur lu mu nekk sous la coupe de l'exécutif citoyen yi nañ xam ne magistrat bay décider ci mandat de dépôt du procureur bi dafay wàññi doole proposé bi xam nga bu ñu doon wax proposition yi yëpp acté nañ ko tey mais li ñu bëgg rek mooy état bi xam ne tey c'est avenir Sénégal moo nekk en jeu. doonatul man damay jël justice def ko sama bras séculier. Mhm. doonatul damay jël justice pour su ma buggee toog ci pouvoir bu ma buggee yokk sama mandat. ma fexe ko loolu amatul tey dañu war a xool li ñuy wax intérêt général te tey citoyen yi taxaw nañ taxawaay boo xam ne. Mhm. buñ fi narrêté continuer ci li fi amoon defe naa lu raw li ñu gis fan yi dinañ ko gisaat moo tax li ñuy ñaan dal ak ñi nga xam ne ñooy gouverner ñu xoolaat seen bopp xam ne mënoo opter pour benn système ba pare di def le contraire ndax nit kat bu sësee bu sësee il est capable def lu ne. donc moo tax ñu am yaakaar ne lu mel nii xëy na dina indi.

xalaat la ci xalaat yi aussi ñu mën ko tijji pour mm-hmm. euh, société civile bi mën dugg ci conseil supérieur de la magistrature mais li ci ëpp solo mooy ne ko cordon ombilical bi moom nañ ko dagg rek mm-hmm. c'est-à-dire que exécutif bi mënatul def dara ci euh, sur sur sur le judiciaire c'est-à-dire que tant que nit ki indépendance nit moom tant que yaa ngi yaakaar ne man sama ëllëg dafa dépendre ci diw c'est-à-dire pour nga indépendant ci diw boobu dafay jafe mm-hmm. te loolu foofu lañ toll tey jii loolu il faut ñu teggi ko teg ko fële comme ni ko maître Assane djuma waxee léegi c'est-à-dire loolu foog ñu ko teg ko maintenant élargir le conseil supérieur de la magistrature conseil supérieur de la magistrature mo wara nek nekk ba nga xamante moy gérer carrière u magistrat yi mhm. c'est-à-dire que ak ses ak si fixe ay critères yu leer nañ ya nga xamante c'est une loi organique moo koy organiser nga xamante buñu éggé fofu ay avis conforme la jox tutelle bi mu mën jël décision yi mo wara jël mais mhm. bu avis conforme amul ñu xam ne conseil supérieur de la magistrature bi d'accordul ci lii citoyen bi bañ a jël loolu. Mhm. ku nekk nekk si sa sphère di liggéey li nga war a liggéey ci sa biir sphère pour ñu mën a jëm jëm kanam. parce que mhm. nag nit ki moom li moom sa bopp yomb na mais jëfee moom sa bopp moo yombul fii Sénégal ndax dañuy jël ay gàllankoor di ko teg seen kaw. gàllankoor yooyu nag moom la magistrat yi tey ñoom ñooy acteurs yi nga xamante ne ñoo gën moom la affaire bi gën a dal seen kaw parce que ñu ngi leen di traité de tous les noms di leen wax ju ñaaw. et cetera te du Aziz Paye euh, ñu di la sant di la gërëm. di jaajëfal maître Assane Dioma Ndiaye tamit ñi ñu àndaloon na ci gis-gis fii la xibaar yi buuree ni suut ñu defuk pàttali ci la ca gënoon a fës. gannaaw fitna ga amoon na ca université Cheikh Anta bu ndakaaru niki bi xëyaat na nañ fa niki euh, tey jii ba léegi nag xamaguñu lu waral dëgg-dëgg jafe-jafe yooyu waaye lañ ca mën a jàpp moom moo di yenn ci ndongo yi am ko tiitaange euh, jëm ci seen wàllug kaaraange foofa ca biir euh, daara ji ñaari wàll ya doon laale ñoom ci jamono ji ñoo ngi jajal dajek taskatu xibaar yi tey jii ci ngoon ca Pikine fa la ñuy teg xeer wu njëkk maison de la jeunesse et de la citoyenneté waaye askan wa nga xam ni ñoom ñoo feggoo fa bërëb ba nekk ni dañuy bañ la leen daloon ci arène nationale indil ay jafe-jafe di maanaam wàllum mbëndëk wàllum ñàkk kaaraange dalaat ci seen kaw ca Sigicoor société civile ba la muy sàkku moom moo di ñu féexal ñeenti ndaw ya nga xam ni moom la ñu tegoon loxo ci fitna yi nga xam ni moom la ñu amaloon ci ndeeteelu ko weeru mars gi ñoom tamit wane nañu seen ñàkk ànd ci randal gi ñu randal lii di élection locale yi mu nekkoon li gën a fës ci xibaar yi Alaaji